l'actualité le débat il est passionnant ces derniers jours ndax y a tellement de points yoo xam ne dafa intéressé askan wi di leen toucher directement reddition des comptes le foncier euh, ay pàcc la ci yoo xam ne aussi euh, danañ ko waxtaanee tey comme ni ñu koy defee rek ci bés yi nga xam ne moo weesu euh, le régime en place les décisions prises les actes posés loolu yëpp dinañ ci ñëw ak sunu ay gan toll ci cinq exceptionnellement dinañ ko waxtaanee ak ñoom di ñuy njëkk nuyu dalal ko ci plateau bi mooy Pape Mamadou Fam nekk responsable politique président conseil départemental bu Rufisque euh, bokk Moncap euh, mouvement national des cadres euh, patriotes Pastef Pape Modou Fam ñu ngi lay nuyu. maa lay fay Mamadou Awa di kontaan ci invitation bi. di profiter ci occasion bi aussi di nuyu samay collaborateurs di nuyu Lamine véritablement avec qui on a l'habitude aussi de de débattre ici di nuyu en tout cas sénégalais yi téléspectatrices ak téléspectateurs 7 euh, TV yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ici et de la diaspora. merci beaucoup di ko sant bu baax sunu ñaareelu gan Babacar Diop moom it du gan ci kër gi nekk responsable politique adjoint au maire bu Grand Yoff nekk coordonnateur ADK ànd dooleel Khalifa bokk coalition taxawu wala plateforme taxawu Sénégal Babacar maa ngi lay nuyu. ben merci euh, Mamadou Awa maa ngi lay remercier bu baax a baax si invitation bi euh, di nuyu sumay co-débatteur le président Amadou Fam, c'est ça Mamadou Fam. Mamadou Fam, c'est ça. Il y a aussi Roger Boissy de, mm donc président du parti Parel, membre de la coalition Diomaye Président. Euh, di nuyu aussi maître euh, moom yàgg nañ daje si plateau yi. Mhm. di nuyu aussi Mamadou euh, Lamine Ba Lamine Ba de la société civile. xam naa ne jamono ji ñuy toll moom société civile lañ gën a soxla. Mhm. vraiment ci Sénégal. ndax faruñu fenn en a faruñu fenn. Mhm. je pense que dina baax vraiment ñuy leeral askan wi. ndax foofu la ñu toll donc débat bi c'est xaw na jaxasoo. mais ñi nga xamante ne ils ne sont de rien du tout. Mhm. xam naa ne ñooñu dinañ mën a àtte donc ñuy aussi nuyu tous les téléspectateurs de cette TV. di nuyu aussi vraiment la plateforme taxawu Sénégal di nuyu askanu Sénégal yëpp. merci beaucoup Babacar Diop di la sant bu baax a baax sunu ñetteelu invité Roger Boissy nekk ingénieur financier président du parti africain pour la renaissance l'éthique et la liberté Roger maa ngi lay nuyu. Euh, Mamadou maa ngi lay sant maa lay nuyu di la remercier ci invitation bi di nuyu ñi ma bokkal plateau bi kilifa yi fi nekk vraiment borom xam-xam yi macha allah. et c'est un plaisir de retrouver Maître Thiam mi nga xam ne on a eu euh, l'occasion la dernière fois bokk plateau euh, di wax ni am naa mbégte ñëwaat fi donc di nuyu aussi euh, seen téléspectateur téléspectateurs yëpp sant aussi. jërëjëf Roger ñaa ngi koy wax léegi maître Sali Mamadou Thiam il fait partie des rares hein, du régime sortant yoo xam ne ils acceptent encore de débattre gars yi koo ci woo mu warf <laughs> donc maître Thiam vraiment c' est un plaisir bi bokk UCS Union centriste du Sénégal porte-parole adjoint bokk benn Bokk Yaakaar ñu ngi lay nuyu bu baax. Euh, Maodo euh, merci beaucoup merci euh, Mathiaw a dëgër fii rek. <laughs> Uh-huh. en tout cas merci beaucoup. voilà c' dommage voilà que les gens refusent de de débattre de donner leur point de vue. parce que mm. je pense quand a fait partie de régime pendant douze ans surtout des gens qui ont des responsabilités. Mm. contrairement à nous qui n'ont jamais eu de responsabilité. Mm. on le fait pour le principe je pense que c' ça enrichit le débat. donc c'est toujours un plaisir vraiment de <clears throat> de partager vraiment ton ton plateau. merci beaucoup de retrouver euh, tey euh, moom pratiquement ñu fi nekk yëpp j'ai la chance et l'honneur mm -hmm. d'avoir partagé. Euh, plateau ak euh, plateau donc c'est toujours un plaisir. voilà donc euh, ma Bussette waa Benno nag honnêtement je sais pas. si Benno est qu'il ah. existe toujours est qu'il existe toujours la coalition Benno parce que là y avait une jaxasoo de. <laughs> très honnêtement je ne crois pas moi à depuis la défaite jeex na le président de de Benno est parti donc euh, voilà <laughs> déjà son parti à distance par téléphone. Mhm. donc moi je pense que les gens. dafa na jël seen responsabilité voilà, merci beaucoup c'est ma conviction personnelle. ci gën a xuus ci waxtaan bi sunu beneen gan bi ñuy daal moom it du ganaa tax mën a kër gi léegi di Lamine Ba bokk société civile nekk coordonnateur du mouvement Podor va mal Lamine maa ngi lay nuyu dalal ci plateau bi. Euh, merci Mamadou di la sant di la gërëm ci invitation comme ni nga wax rek donc mbégte la ak plaisir toujours ak honneur aussi di ñëwaat ci sa plateau. Mhm. dañuy dolli di la ñaanal di la dénkaat yàlla parce que ndaw xale nga et puis mais macha allah. jërëjëf ce Sénégal yëpp nangu ko chaque fois moom dama koy waxaat. Sénégal yëpp nangu na ko ci sa respect ci sa modestie ci lépp daal. merci di nuyu plateau bi yëpp particulièrement président Fam Mamadou femme Roger Maître. Mhm. Euh, Babacar Diop en fait chance bi chance bi nga am mooy pratiquement ñi ngay indi ci débat bi yëpp c'est des gens xam ne en dehors même du plateau. il continuer à euh, maintenir des relations. c'est important euh, c'est Sénégal en fait vraiment ñu baax la ñu maître aussi di ko nuyu di ko remercier. ci taxawaayam parce que li nga wax nga ko li Sénégal a besoin des gens comme ça. Mm-hmm. dans dans la joie et dans la dans la dans la tristesse entre guillemets nga mën a ñëw euh, vraiment wax sa xalaat vraiment wax li nga gëm. vraiment ñi am gëm-gëm rek ñoo ko mën a def. jërëjëf vraiment merci beaucoup Lamine donc ñu door waxtaan wi euh, maa ngi leen koy wax ah l' actualité bëri na ci le foncier bëri na ci euh, wàllum reddition des comptes ak yu mel mais avant loolu hier ci guddi gi euh, un incident s'est produit à l'AIBD mu doon loo xam ne heureusement mënoon na gën a garaaw Pape Mamadou Fam ban ban jàngat nga ciy am. waaw par rapport à l' avion maa ngi déglu tey monsieur le ministre. El Hadj Malick Ndiaye di ci wax je pense que aussi c'est c'est des choses inhérentes à la vie ah mais nag ñu gën a vigilant parce que nag euh, mbirum avion moom. Mhm. Euh, dafa c'est rare mais quand ça arrive moom c'est dramatique. voilà c'est dramatique. Mhm. ñu koy jël ñëpp xam nañ ne moyen bi nga xam ne saa laisse peu de chance donc nag raison de plus pour comme ni ñu koy defee ils sont techniquement il faut que véritablement tout tout soit paré piste yeeg lépp donc l'origine je ne pas lan la enquête yi. génne parce que il faut délai l'attendre mais suñ demee ba xam ne défaillance yi c'est humaine si ay nit la jógee wala matériellement piste bi et cetera c'est des choses quand même qui seraient gravissimes maintenant su nekkee nag comme ni ñu ko waxee mbiru yàlla mhm. maanaam euh, on a du mal à se l'expliquer ñu xam ne aussi souvent ça ça arrive ndax machine la ak buy kii te comme toute machine Euh, day andi ay anomalies. Ah, maître au-delà de de de de ce qui s'est passé hier yu mel nii au Sénégal dañ koy coow ci euh, saa si après on oublie amoon na benn crash bu fi amoon bi bi woon ak compagnie euh, équato-guinéenne bi. Mhm. amoon ay morts jusqu'à présent xamuñu lu xew. donc yu mel ni xëy na bu ñu ci jàngatee xool li xew. dina permettre ñu mën koy dépasser wala éviter ko ëllëg. moi je pense que comme comme il l'a dit hein, au-delà de. c'est c'est naturel c'est humain et tout ça mm -hmm. je pense qu'il faut quand même qu'on prenne des mesures c'est vrai que ndogal yàlla la on peut dire alhamdulilah déjà parce que a euh, garaaw l'avion aurait pu décoller voilà décoller mhm. crash donc euh, alhamdulilah l'incident s'est produit à, terre <coughs> mais ça mérite quand même des une mhm. parce que je ne sais pas si c'est avéré ou pas euh, parce que j'ai cru entendre que c'est Euh, une deuxième tentative de décollage. Mhm. ce qui veut dire. oui loolu la ñuy wax a une première fois. seconde fois bi la euh, exact s'il y a une première tentative de décollage mu problème technique je pense que. je ne mais on devait quand même euh, s'arrêter mhm. donc c'est à la suite de la deuxième tentative qu'il y a eu incident heureusement. que c'était pas au vol. Mhm. mais je pense quand même je pense que le ministre a annoncé une enquête. et on pour pour notre image c'est pas bon pour euh, Ça, la destination vrai. Sénégal mm -hmm. donc euh, euh, plus de peur que de mal mais il faut quand même qu'on soit beaucoup plus vigilant qu'on soit beaucoup plus rigoureux ah, Roger mhm. donc euh, pour moi grave euh, il va falloir déjà que les responsabilités soient situées ouais. mais comme on dit plus de peur que de mal parce que ku mhm. xam wàllum avion mhm. bu jógoon rek musiba am musiba am mais donc dañuy sant yàlla di masaw coono ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk Euh, tiitange boobu noonu. mun na euh, mun na. mën na la topp à vie. voilà mhm. et puis donc euh, suñu autorité daal war na ñu gën a jël ay matuwaay ñu bàyyi xel ci tout ce qui maintenance ñu bàyyi xel avant affaire di décoller ñu jël le temps qu'il faut le temps nécessaire pour voir tous les aspects techniques. Mhm. avant de mettre l'avion sur la sur la piste de décollage. Ah ah. donc loolu daal dañuy ñaax autorité yi def ci liggéey. Ah, Babacar. merci moi je pense que pratiquement suma prédécesseurs yi wax nañ lépp situation yi dafa yàgg am Sénégal malheureusement après doom aboutissement. malheureusement waaw ouais, ouais. donc je pense que il est temps comme euh, le nouveau régime ñu ngi oote rupture. Mm-hmm. que genre situation yi su amee ñu mën a situer les responsabilités. Mm -hmm. et prendre des mesures très fermes. parce que loolu mooy tax ëllëg. Mm-hmm. yenn yi du am parce que bu dee am na première euh, première tentative. Mm-hmm. mu avorté une deuxième fois. moi je pense que am na yenn yoo xamante ne dañ ko waroon lijjanti te lijjanti wuñu ko. Mhm. wala ma jàpp ne négligence la. alors donc il faut que ñi nga xamante ne ñoom ñoo yelloo jël ay décision fermes dans ce sens la mhm. ñu commencé di ko jël pour servir à d' autres personnes genre de situation yi mu war a dàkk. te parce que dund nañ fi dund nañ fi la situation de Joola bi. Mhm. et cetera donc nous avons tellement vécu. en 2015 genre de situation et tu sens que ça se répète. les gens ne trouvent pas de solution doo si déggaat suite mais en un moment dafay mel ni sax nit ñi dañuy foowee bakkenu askan Donc je pense qu'il faut prendre des décisions et sanctionner. sanctionner Quand on est responsable, il faut sanctionner positivement ou négativement. Et fii dañoo war a sanctionner pour maintenant servir pour permettre à d'autres personnes maintenant vraiment de ne plus commettre maintenant ce genre d'erreurs. Ah, Lamine xamuñu appareil bi la xamuñu erreur de pilotage la mais dans tous les cas une enquête sérieuse doit être menée parce que on dit que les appareils de Boeing comme bii nii nii nii nii bëri na am problème et avant ça on avait vu avec le problème des amoon explosion yi. Sénégal nos autorités manquent de fermeté wala c'est quoi le problème ba mënuñoo wax ak ñi nga xam ne ñoo ñoo yor mbir yooyu. waaw sur le dans le domaine technique moom comme ni maître wax rek duñ ci xuus sauf que euh, le nouveau régime interpellé. Mhm. parce que wax nga ko y a eu de faits semblables malheureusement a jamais eu de suite. donc wax nañ ko Joola crash bi y Total et tout ça. mais Dieu a fait que nouveau régime qui venu avec un esprit de rupture. Mhm. et au-delà même de cet aspect il faut que d'abord au-delà ñu masawu d'abord ñi ci am ay blessures ñaanal leen yàlla que ñu xoolaat même la compagnie parce que au-delà de ça c'est l'image de la compagnie. Mm. qui est qui parce que Sénégal c'est des retards de vol Air Sénégal c'est des pertes de bagages. Air Sénégal li ñëw teguwaat elle ne mérite pas encore elle a été organisée uniquement montée uniquement pour que ñu wone am nañu. Mm-hmm. une compagnie wuti des flottes et puis li c'est important. parce que Boeing aussi vraiment gis nañu quand même. Sont, il y a ouais, beaucoup dernièrement c'est l'appareil il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes ouais, par mm-hmm. rapport mm -hmm. au Boeing et on ose espérer quand même que les autorités, prendront vraiment contrairement au, au régime les responsabilités et les, mesures idoines quoi. merci beaucoup jërëjëf ñu door waxtaan bi nag ci euh, foncier parce que gis semaine dernière le président Diomaye arrêté euh, lu bëree bëri déjà ci littoral bi mais également à Thiès Mbour euh, mais jour yi di jàll ay yeneen mbir di feeñ. Euh, pour le littoral on dit que certaines constructions tàmbali waat nañu qu'est-ce qu'il y derrière xëy na dinañ ñu ko wax pour ah pour Thiès aussi on avait donné des noms mais après bi ñu ba si bi gis nañ que am na yoo taxoon loolu am donc est-ce que le président euh, Pape Mamadou euh, n'est pas allé un peu trop vite en besogne est-ce qu'il a pris le temps de comprendre réellement li nga xam ne moo xew laataa muy porter préjudice à de nos citoyens pour les cas merci Mamadou Awa il faut peut-être euh, ñu accès question boobu noonu parce que je pense que quand on a parlé d'arrêt de mhm. suspension quand on parle de suspension comme le mot l'indique ce que l'on suspend peut redémarrer donc il n'a jamais été question euh, comme ne euh, dañ koy dañuy dindi ñëpp dañoo yegg si gis nañ une situation quand bi nga xam ne c'est problématique parce que ay litige sax ñoom dañ fa fekk non seulement il y a des il y a les aussi ñoom ñu doon jàpp ne am na seen yu ñu dindi. am na mhm. si côté corniche bi nga xam ne dañu ñëw dindi seen i bagages fi ñu doon tenisee fi ñu def li nit ñëw donc ils ont trouvé une situation quand bu xaw a jaxasoo am peu au Sénégal ils ont euh, élaboré euh, énoncé des sites yi nga xam ne les choses doivent être en suspension mais pas à l'arrêt absolument maintenant pour certains comme ils le disent am na ñu reprendre. moi en tout cas j'appelle le le le mhm. que cette question soit réglée. Mhm. il faut que euh, ñun ñoo ko woote moom moo nekk te man jàpp naa ne su loolu la ñuy jëm on ne peut pas être dans un pays où un seul individu peut à Kaolack deux cent hectares à Touba. 800 hectares à Dakar et cetera et cetera soo ko xoolee bu baax mënoo wax ne bii entreprise la am fii la l'origine xaalisam fii la jógee donc il y a des choses yi nga xam ne l'État doit être courageux pour en tout cas on ne peut pas avoir des régimes qui successivement à chaque fois font la prédation Euh, fon foncière. Mhm. ñëw régime bi soo xoolee site bi ñoom rek a foofu moom ñoom ñoo ko séddoo si non seulement ñun on doit pas verser dans ça c'est qu'il est très clair parce que nag euh, euh, rupture bi ñu woote mais ñu peut-être on va venir de faire pareil quand on va pas faire pareil et il nous appartient de corriger. Mhm. bon mesure bi c'était ardu de laisser les gens reprendre comme si de rien n'était il y en a je sais pas les tenants les aboutissants parce que nit day honnête mais en tout cas dans l'absolu mhm. nous devons faire le nécessaire pour assainir ce qu'on appelle le, le, au Sénégal mais après les accusations il y des explications Pape Diop par exemple dañ ko fay loo xam ne dañ ko jëloon ci moom Idrissa Seck il n'est en rien lié aux hectares yi ñu ko attribué c'est pas clair hein Mamadou ma nga xam ne tamit la ko jëlee aussi parce que tamit loolu yëpp il faut que ñu xam ko xam nga les conditions sur lesquelles on. Euh, on attribue on euh, voilà mm -hmm. on attribue on octroie les terres au Sénégal. à des à des de la ñuy xoolaat. tu peux pas des fois ñu ne lii yow yaa ko moom des hectares ñu xool lii la koy jaayee sax. day friser le ridicule dañu ñëw ne fii le mètre carré on te à 1000 francs alors yow une fois nga acquérir ko on se rend compte dans la réalité ça coûte 100000 mm, mm. wala ñu ne la jaay nañ parce que seen position moo la parce que il y a d'intérêt mm-hmm. absolument on ne peut directeur des domaines ñu ñëw xool ne pendant période bi nga am tu as acquis autant de wala ñu ne parce que tu étais ministre Euh, pendant moment bi nga doonee ministre ak kii loolu conflit d'intérêt la mënul dem et moi je pense que les conditions là moom la ñu war a revoir si on se rend compte que gens se sont en termes de foncier euh, au niveau des régimes passés parce que man am na quelqu'un qui le disait pourquoi ñuy yem ci régime bii rek on peut aller plus loin encore maa ngi koy wax même le régime libéral si dëkk kër góor gi ni ñu dafa dafa doy waar mu ngi noonu su nekkee li ñu mën a mm-hmm. rattraper on peut pas euh, tout rattraper nag mm-hmm. il faut avoir l'honnêteté de le dire comme si ne góor gi nga wax les gens ont habité pendant maintenant léegi mu bëgg yàgg mm-hmm. yooyu euh, xam ne benn kër la fa am ça est divisé socialement nga ne ko da nga koy mais dans l'absolu ceux qui détiennent te mënuñu andi benn benn lenn lu dëgër fi ñu ko teg mën parce que sooy saytu il s'agit pas de fayantu mais on a des corps de l'État qui hmm. sont capables de te dire un tel comment il a eu tant d'hectares ils peuvent te signifier ñaata lañ ko ko jaayee kan moo ko ko octroyé qui a été aux impôts au domaine hmm. les conditions neg maintenant à partir de ces enquêtes la finalement dire yi nga xam ne dañ koy delloowaat domaine euh, à l'État mu mun delloo ko seeni borom en tout cas. essayer d'en faire autre chose ak yi nga xam ne quand même légalement euh, les bénéficiaires quand même ils ont la légitimité d'avoir leur part. Ah, Babacar le foncier le président euh, maa ngi naan Sall le président Diomaye fay euh, ni mu ci jubloo nii ban njàngat nga ciy def. bon man li ma ci sama xalaat bi ma ci joxe mooy li njëkk mooy ñu teg ay réformes. Mhm. réforme bi njëkk mooy impôt domaine nañ ko tas. Hmm? impôt domaine nañ ko tas. pour mettre ko à la place. non nañ def impôt nañ def domaine. ah d'accord d'accord d'accord. gis nga mbir mi impôt domaine la njëkkee et je pense que ñi nga xamante ji son les tenants du pouvoir ñoom xam nañu foncier. xam nañu suuf bu mhm. baax a baax a baax. ça c'est vrai. aujourd'hui ñu ngi wax mbuurkat mais nañ dem fii nii ci aéroport Léopold Sédar Senghor bi. mais pièce bi fa nekk kenn mosu ko gis ci àdduna. aujourd'hui ñu ngi joxe foofu terrain yi à quatre. 40 millions. c'est juste moo ko doon jaay c'était des milliards après. lañ ci am non mais ñi fa ñi fa am foofu am na fu ñu fa am ay ay 200 hectares. waaw am na ñu fa am ay 50 hectares et ñoo ñëpp si des dignitaires. de l'ancien régime de l'ancien régime. mais tey boo fa demee euh, démb dem naa fa doxantu ji. Mhm. pour faire maintenant une visite. mais boo gisee construction yi ni muy demee nga xamante ne vraiment ce régime a du pain sur la planche. aujourd'hui le problème foncier bi ñu war a lijjanti fi Sénégal. Mhm. non je vous dis que ñeenti mandat de vingt cinq ans. vingt ans du ko régler. vous n'avez même pas besoin ngay dellu ba ay ay dem si ancien si. régime libéral bi mooy mooy les libéraux. le mhm. le parti de Abdoulaye Wade 2000 c'est vrai que ñoom. muy la zone de captage foofu la tàmbalee foofu la muy la zone de captage nga jël Mamel. nga jël la foire. Mhm. yooyu yëpp ñoom ñoo ko dagg. foofu la tàmbalee. aujourd'hui même boo jëlee inondation bi nga xam mooy nekk di am. Dakar mais zone de captage moo. kandi bi ñu dagg. warul woon nekk construction. donc ñoom dañu ñëw dugg ci benn piège boo xamante ne kenn mënu ko comprendre tey boo duggee ci aéroport bi ni ñu ko daggatee tu te poses même la question à savoir est-ce que foofu président Diomaye Faye mën na continuer di fa décoller. parce que aéroport dañ ko récupérer hmm. pratiquement y a des constructions tout autour ba si zone de crash bi hmm. tabax nañ ko loolu c'est grave parce que première zone de crash bi fi njëkkoon am Nord la woon bi ñu daggee Nord Foire ñu orienté ko mais zone bi ñu ko orienté léegi sax dañ ko daggaat morcelé ko jaay nañ ko et ñu ne foofu la avion présidentiel bi di décoller hmm. foofu lay atterrir nga jël même la tour de contrôle bi da ngay gis ay immeubles yoo xamante ni ñoo ko sut ñoo ko sut <laughs> c'est du n'importe quoi ce qui se passe dans ce pays waxuñu mbuurkaat mbuurkaat moom je pense que c'est un problème boo xamante ne pour man rëccugul <laughs> non rëccugul mën nañ ko rattraper ah. contrairement ak li monsieur président Fam léegi wax ci littoral bi je suis d'accord que am na ñoo xamante ne seen yoon newu ci dañoo jënd légalement dañ doon tabax et cetera bien que nag. mais nee nañ domaine public littoral bi non littoral bi jëndee légalement amoo droit après bu ko ci état jël doo da ngay ñàkk. non cest à bale yërëb d'un revers de main ce n'est pas possible. dina am yoo xamante ne ça peut se comprendre bien que je ne suis pas dans la compromission. Mm mais def lépp ñu dindi lépp. xanaa léegi hôtel yi fa nekkoon ay teeru bi et cetera dañ leen di dindiwaale ce n'est pas possible am na yenn yoo xamante ne am na yenn yoo xamante ne fa la président Sonko nekkoon ah non am na yenn yoo xamante ne asalaay na yenn yoo xamante ne si c'est des privés mhm. ñu xool li nga xamante ne moom moo précédé vente bi yëpp teg nañ ko ci yoon mhm. yi nga xamante ne exeegul wala ay dignitaires yi nga xam dañ ko fa ñëwoon muy conflit d'intérêt bi femme doon wax loolu ñooñu vraiment mën nañ seet yan procédure la ñuy def pour récupérer waat ko et que ñu arrêté di joxe littoral bi. il faut que ñu arrêté. Mm-hmm. il faut que ça s'arrête il faut pas que ñu koy lijjanti un an deux ans après ñu déggaat na ñu ngay joxe joxewaat et loolu dañuy mettre en garde ce nouveau régime. Mm-hmm. il faut pas que ñu dindi ay mbir. nit ñi jàpp tàccu ñu bàyyi un an deux ans après ñu commencé woon andi mm-hmm. les mêmes les mêmes les, les, les mêmes pratiques que l'ancien régime parce que li tax aujourd'hui ñu fa leen d'une façon vraiment historique c'est parce que askanu Sénégal dañoo am yaakaar. ci ay promesses électorales c'est vrai. parce que ku jëfagul say kàddu rek lañuy am yaakaar. Mm-hmm. yaakaar yooyu noonu tey jii bàyyiwul benn couche muy xale yi muy mag yi man jouru élection yi dañ doon naan xale yi ñoo topp Ousmane Sonko mais mag ñeeg xale yeeg diggu doom yi dañoo voté massivement mm-hmm. parce que dafa am lu ñuy yaakaar ci ñii donc il faut pas de compromission il faut sa s'assumer et agir avec courage ndax ku askan. vraiment tënk jiital la dar la da war a am fit mhm. Roger je pense cette même question le président bi mu njëkkee wax foogoon nañ ne euh, c'est c'est c'est c'est définitivement réglé le problème et que dellu ginnaaw dootu ci am mais le temps passe. ñu ngi gis que ne comme on le voit ci corniche littorale bi yenn yi mi ngi reprendre a Thiès aussi ay vérité ñi ñi ngi feeñ yooyu mbir aussi est-ce bu ñu ko boolee duñ ne le président dafa xaw teel a jug wala teel a wax ci ci mbir mi waaw je pense que euh, am na benn benn point bi nga xam ne tey tous les Sénégalais sont d'accord là-dessus que le foncier fait partie des plus grands problèmes de ce pays. Mm-hmm. parce que chaque jour ñu dégg di litige foncier. te sànq lors d'une autre émission dama doon rappeler que l'un des des plus grands conflits dans ce pays euh, l'une des raisons majeures pour ne pas dire la raison principale c'est le foncier. le problème mm-hmm. de la Casamance. quand j'ai commencé à parler peu de la jeunesse quelqu'un a cru que dama doon jéem dugg dans les discours séparatistes mm comprendre lan moo tax ma ko doon wax c'est un mhm. problème qui est très important tey euh, la posture du président Diomaye dañ koy comprendre parce que boo ñëwee ñu fal la ci dëkk ñu jox la euh, sunu lépp mhm. ñu jox la euh, nga nekk en charge de sunu suñu sunu sunu sunu cohésion sociale la stabilité du pays parce que bu xamee un problème comme ça c'est important nga ñëw nga def ko une priorité donc quand il vient mon camarade l'a rappelé tout à l'heure mooy c'était une suspension suspension pour que ñu saytu ñu xool les les tenants de ces terres là mm-hmm. comment ils ont acquis ces terres fan lañ ko jëlee comment ils ont acquis pour ceux qui ont déjà construit comment ils ont acquis les autorisations de construction donc loolu yëpp pour man c'était important que ñu mettre la lumière là-dessus et que bien entendu les personnes yi nga xamante ne ñoom ils ont ils les ont acquis acquis dans ñu bàyyi leen ñu ñuy def mais ñi nga xamante ne euh, ils ont enfreint la loi vraiment yoon dal seen kaw Euh, question littorale bi je suis parfaitement d'accord ça n'appartient à personne. Mhm. parce que boo demee ci yeneen dëkk yi nga dem si ñoom seen euh, nga xool dëkk yi bi ñoom nuñ nuñ ko ko nuñ ko defee. bien comme ko tabaxee mais tu te demandes pourquoi ñun on n'est pas capable de faire pareil pour suñu mhm. dëkk. booy daw ci corniche bi tu vois mais la beauté et des choses qu'on aurait pu créer bi nga xam ne ça aurait pu profiter vraiment à la population mhm. sénégalaise donc pour man c'est important que la à qui ne sont qui sont de l'opposition mm -hmm. qui ne sont pas du pouvoir. mais le foncier dafa dem problème boo xam ne déjà le maire de Thiès boo ko dégloo ce qu'il dit mooy li tax joxewul liste bi dafa am ay guides religieux yu ci bokk maanaam. Mhm. li ci biir est-ce que mën nañ koo dem jusqu' jusqu'au bout. bon pour man personne n'est au-dessus de la loi avec tout le respect que j'ai pour les chefs religieux pour euh, nos autorités. Mm -hmm. et mhm. autres mais il faut comprendre que, comme j'ai dit tantôt euh, c'est un c'est un problème qui C'est la raison pour laquelle il faut y avec sagesse. Il faut beaucoup de courage Avec diplomatie, il faut beaucoup de courage mhm. aussi. mais il faut comprendre que bu état Sénégal soxlaa ku soxla da nga ñàkk normalement ci les règles de l'art mhm. parce que l'état au-dessus de tout le monde nous sommes tous des citoyens bien entendu on a énormément de respect pour nos chefs religieux et pour les personnes âgées mais aussi tamit bu nekkee c'est la pour que ñu mën a trouver un consensus mais c'est ce qui est arrivé à Pape dañ ko exproprié à Saint-Louis fayee ko Mbourkat c'est ce qu'il a expliqué waaw moo tax ma ne là sur cette question-là il est important de privilégier la communication parce que communication mooy base de tout mhm. parce que nit mën mën nañu am des propositions différentes mais bu ñu toogee autour d'une table ñu tenir un débat sincère et honnête peuvent arriver à un compromis mhm. ça va aboutir. Merci. réunir tous les tous les de trouver un compromis bi nga xamante ne du gaañ ce sera à juste euh, au juste milieu, milieu vraiment pour que consensus mun a. ah maître malheureusement yéen lañ ci tudd ah le régime précédent <laughs> littoral bi nee nañ yéen la Mbourkat nee nañ yéen la Bande de Filao nee nañ yéen la ah yëf yi de. ñoom lañ wax je pense que Boubacar. Euh, Boubacar l'a dit euh, le problème foncier au Sénégal. le foncier c'est un problème au Sénégal. Mm-hmm. je pense que ñun à l'époque à l'université euh, Amsatou Sidibé loolu dañu wax mu ne foncier boo ci wax sax tu dois trembler. Mm-hmm. le président Macky Sall a di que parmi les. voilà dossiers yi mu jot sur la table 80 pour cent la wax. exactement yëpp ça concerne le foncier. et wax nañ léegi euh, ki cité Kourgueur gi wax nañ euh, Mamel wax nañ zone de captage. je pense problème foncier au Sénégal dafa yàgg. et c'est un problème boo xam ne je suis d'accord hein, il faut le prendre à bras le corps. Mm-hmm. mais ça demande la prudence aussi. Mm -hmm. ça demande la prudence. ndax lan moi je suis pour la prudence. parce que euh, déjà il y a jamais eu de de de de euh, d'arrêt de construction sur le littoral. Mm -hmm. la note de service que le directeur général des impôts et domaines a sorti mm -hmm. nulle part vous verrez arrêt des constructions. moi je me demande même sur quelle base la DESCOS est partie là-bas pour demander l'arrêt des constructions. Mhm. xoolaat des fois dafa ah, si c'est sur la base <laughs> de la note de la mm. il y a jamais eu d'arrêt de construction on a des suspensions des actes et des procédures mm-hmm. loolu la ñu c'est très clair. des actes et des procédures nulle part y pas arrêt travaux. mais sax loolu dafa nekk benn prérogative bu DSCOS am pour ne pas avoir les mains liées bu gisee lu jaaduwul mu arrêté ko automatiquement. parce que c'est très souvent. mais lu jaaduwul mooy lan lu jaaduwul mooy lan c'est quelqu'un qui occupe son titre c'est quelqu'un qui construit. occupe par exemple domaine maritime nee nañ ko war ko qui a un titre foncier par exemple. voilà c'est ça je du dur voilà c'est pourquoi je dis il faut par exemple il faut il faut être prudent. Mm-hmm. prudence bi c'est par rapport même aux noms qui sont cités. yow ouais. vous avez tout à l'heure parlé de Idrissa Seck. Mmh. vous avez mm-hmm. tout à l'heure man j'ai écouté te dem de Pape Diop. qu'on peut comprendre et le foncier au Sénégal y a deux régimes la le, régime de l'immatriculation boo xam ne par l'État du Sénégal par les impôts et domaines. Mmh. ñooñu c'est des c'est des inspecteurs des impôts c'est des fonctionnaires mmh. qui gèrent qui peuvent vous donner un terrain sans même que le régime ou la politique man donc c'est pas forcément lié à de la politique forcément mmh. que c'est des inspecteurs des impôts yeah. qui ont le pouvoir de gérer le, le, de l'État ñoom ñoo jox les attributions yi ngay gis. ils en profitent aussi et yi euh, nañ ko wax ah c'est même pas des attributions da gis quelqu'un boo on dit que Mamadou Fam est attributaire mais en réalité dafa jënd ci suuf bi lañ nekk. Mm-hmm. l'autre régime c'est le régime également du domaine national foofu tam la responsabilité c'est pas c'est pas le président de la République c'est la responsabilité des collectivités locales mmh, mmh. une mairie le problème, ouais. une mairie du point de vue juridique un conseil municipal a le pouvoir de délibérer et d'affecter des terrains mmh, mmh. loolu loo ci mën le conseil municipal il est souverain si le conseil municipal se réunit et dit qu'il affecte à Boissy dix loo loolu ci mën délibération yi ñuy wax mooy délibération yi loolu c'est légal Euh, c'est vrai je suis d'accord qu'on prenne en charge ce problème-là et je suis pas du tout d'accord qu'une seule personne am 10 hectares mhm. c'est abusé en fait ah, pendant ce temps pour le cas de Thiès ña fa dëkk il faut qu'on soit prudent mhm. parce que pour l'instant j'ai pas vu de délibération au nom de ces personnes citées j'ai pas vu de lettre d'attribution j'ai pas vu de bail au nom de ces personnes-là mhm. euh, hier j'ai écouté l'urbanisme il a raison nu mu ko waxee c'est pas conforme à ce qui est en train d'être dit c'est pourquoi je dis il faut de la prudence je suis d'accord que les autorités essayer de voir et de prendre les décisions qu'il faut. Mm -hmm. Mais je pense que la solution en dernier ressort, c'est ce que Babacar a il faut réformer. Mhm. Plusieurs fois, on a mis en place une commission de réforme. On ne va jamais jusqu'au bout. Pourquoi Mais il y a des lobbies qui sont très forts. si on doit le voilà mënul mënul am kumba am ndey sam am xaw ma lan. kumba am ndey kumba am c'est pas possible parce que vous êtes marabout. ñu protéger la bàyyi la voilà. Euh, vous n'êtes pas malheureux vous n'êtes vous êtes comme ça li ci am on vous voilà loolu aussi ça pose problème mmh. ça mhm. amène de la frustration. donc mais même c'est ce qui a précipité la chute du régime hein? mais exactement ñàkk kii yooyu la gars yi meroon. voilà donc mmh. euh, les Sénégalais ont besoin de savoir. les Sénégalais ont besoin de savoir mais moi j'appelle à la prudence. Mmh. et et moi je je suis d'accord vraiment qu'on essaie de voir ça le littoral on a tous besoin du littoral. merci. Euh, c'est vrai que euh, c'est des constructions précaires qu'on doit ériger. Comment ces gens-là sont parvenus à construire des R+. Voilà, mmh. c'est une problématique. Mais aussi qu'on essaie de préserver les intérêts des particuliers. Parce que d'habitude, ceux qui sont en train de construire, ce n'est pas forcément des politiques. C'est des gens peut-être qui ont emprunté des procédures régulières. Euh, voilà, il faut donc, honnêtement, euh, je suis d'accord vraiment qu'on essaie de réformer, qu'on essaie mhm. de, mettre tous les Sénégalais au même pied parce que quand même moi j'ai jamais eu de un terrain de l'État du Sénégal mhm. et quelqu'un pendant à 10 hectares hectares 300 yeah. hectares qu'est-ce qu'il va en faire c'est pas merci beaucoup Lamine la Babacar mi ngi la société civile a du travail hmm. jamono ji parce que yéen yàgg ngeen dénoncer même ce qui se passe ci littoral surtout tey jii nii waaw non ça veut dire que instant bi kay sénégalais yëpp am liggéey. Mhm. c' est tous les sénégalais qui ont un travail et tu sais Mamadou xam nga problème bi. mbir léegi coupé ma la ah. je l' ai vu ci littoral bi moom. Clédor Sène oui. man j' étais. non day pour les gens fas c' est à dire Pape Mamadou. <laughs> xam nga mbir mi dañuy naan ngóom soo koy faj da nga koy raxas ba mu set. c' est ça il doit il doit il doit pas y avoir de demi mesure. Mhm. mbir mi da ngay teg lépp ci table bi lépp ngay teg ci table bi. parce que li gën a am solo femme il est président conseil départemental il maîtrise mieux que nous ces choses là. Mm-hmm. pour la plupart littoral bi je n'accuse personne mais li ñuy wax des privés des privés pour la plupart c'est des privés qui sont en relation avec des sénégalais. Mm-hmm. sénégalais boo gis da lay ne dem naa wuti benn investisseur. Mm-hmm. investisseur mooy ñëw tabax léegi suñu ëllëgee ñu taxaw ñu ni non c'est un privé mënuñu ko dédommager il a obtenu régulièrement nangam na alors que c'est moo nekk suuf mm-hmm. moo tax keroog quand le président parlait des histoires de prête nom il faut aller jusqu'au bout mm-hmm. loolu dana ci bëri trop les prête nom dina ci bëri pendant ce temps c'est des milliers de sénégalais ñoo toog mënuñu am fu ñu fanaan mm-hmm. chaque jour que Dieu fait ñu ngi leen di génnee seen kër problème location benn Sénégal lañ gis mu yor cinquante hectares mu yor vingt hectares mu yor dix hectares mu yor cinq deux cent hectares. on dit qu'il a obtenu légalement il a eu ses papiers il a tout ça mais quand l'État a besoin l'État est devant tout le monde. loolu sax moo dul yoon en fait. suñu war a dëkk war toll noonu benn nit. si je ne me trompe pas mais bàyyi sax état mën na annuler bàyyi ah. bien sûr c'est juste mais yooyu yëpp ay buur la. non c'est-à-dire que c'est pas c'est-à-dire que c'est pas normal pendant ce temps on parle de location chère. on parle depuis dix ans ñu ngi trouver des solutions pour la location. Mm-hmm. ñu ngi tey l' état am na problème pour régler cette question là mënuñu am gisuma ban alchimie la ñu mën a jaar pour wàññi location bi pendant ça c'est privé la ñuy dox yi la jox suuf ñoom ñooy tabax ay immeuble ñoom ñooy loué waat sénégalais état bi mënul sax tordre tordre la main pour que ñu wàññi ko mais la seule solution pour wàññi ko nañu retive récupérer ces terres là gis nga euh, ils ont le devoir non vous avez non xam vous avez le devoir devant l'histoire mhm. et devant la nation de régler cette question pour deux raisons d'abord parce que le connaissent Ousmane et Diomaye le connaissent le foncier. seen domaine la. chance que nous avons c'est des inspecteurs des impôts et domaines assermentés. mais il y a certains qui les accusent d'en avoir profité aussi. non parce que bu la syndicat impôt attribué terrain. Euh, yooyu aussi ay mbir la non non non avant chose tey man si léegi j'étais un inspecteur ma nekk ci régime ñu joxoon ma ko dama koy njëkk delloo mm-hmm. damay njëkk di dañ ma ko attribué woon tey j'ai compris que dama ko war a delloo ko ci table bi et ça c'est la grandeur mm-hmm. parce soxla woo ko am nga sa benn kër mm-hmm. tey quand les gens du régime sont cités dans la bande des filaos dëgg la wàllu dëgg il aurait dû s'expliquer tey génne ne dañ ma ko joxoon c'est légal wala c'est légal delloo naa ko cest à comme ça loolu la ñuy ci ñoom. loolu la ñu la pédagogie par l'exemple. c'est cette rupture bi ñuy xaar ci ñoom. man si je vois tey Pape Diop on a beaucoup de respect pour lui dire que c'est le dañ ma dédommagé la corniche de Saint-Louis nan la ko amee. Mhm. loolu la ko amee question bi faamoo dafa am solo nan la amee corniche bi c'était la bordure du fleuve wax na ko daf ci waroon tabax hôtel. tey on se pose une question est-ce que c'était pas le prix son mhm. poste de député là est-ce que ouais. c'était pas le prix pour faire la différence mhm. on se pose des questions cest dire que loolu lay wax ji ñuy pour la plupart fois wax na lu am solo pour la plupart ils ont acquis ces choses là parce que ils étaient dans le pouvoir wala ils étaient proches du pouvoir doo dégg moom ñu ne femme am na 50 mhm. doo dégg moom Thiam am na 200 doo dégg ñu ne Babacar Diop yow am nga 200 ñan ngay dégg ñu ngi cité ñoom ñan la c'est damay dem lijjanti ma dem wuti investisseur ma ñëw ñu tabax gis nga sa littoral là il faut qu'on règle cette question là et may terminer gis nga li ñuy wax littoral bande filao li ñuy wax mbuurkat c'est encore plus grave dans le monde rural mhm. li xew ci monde rural bi c'est pire encore comme li amoon Dengler par exemple mais c'est pire li amoon Dengler li amoon Fanaye li amoon un peu partout et ils sont en train de souffrir et chose soo seetloo ngi wax Bambilor ñu ñu ngi kaas mhm. fii ñu ngi kaas ñu ngi kaas cette bombe bi mu doon wax il faut qu'il mette balle balle à ñu réglé ko. étudier lépp xool ko cest dire dañ koy réglé amul na non non c'est déjà fait tabax na Radisson non tabax na Azalaï mais comment on les a octroyé ces terrains là. Mm-hmm. nan lañ ko tabaxee mais qu'ils disent au moins aux Sénégalais nan lañ ko amee. Mm-hmm. même suñ ko narul toj qu'ils disent aux Sénégalais nan lañ ko amee. qui est derrière ça. Mm-hmm. ay Radisson c'est pas de la publicité mais c'est des filiales c'est c'est c'est sénégalais. les licences de pêche illégalement attribuées wala yoo xam ne aussi yaa ngi ko doon wax sànq ma ko doon wax un sénégalais ma dem wut ay partenaires ñëw nekk ci ginnaaw ñu ñun ñu la fekk ne un sénégalais qui en profite pour la pêche aussi vous avez pris euh, la décision jug ci euh, en annulant yenn licences yi nga xam ne amoon na dernièrement te tegu ci yoon. Euh, merci Mamadou si je pouvais deux minutes rek par rapport question bi am na ma si doon yokk parce que ça me tenait à cœur mhm. euh, dans le cadre de mon travail comme ni ko Lamine di rappelé euh, dafa am benn zone agroécologique bu ñu ooyee le Lendeng à Tëngéej à mais le Lendeng ñëpp xam nañ ne mooy ravitailler pratiquement la région de Dakar en tout cas presque ñëpp xam nañ le le Lendeng Tëngéej lay jógee mais ñoo jóge foofu Fadial yu ñëw marché yi ngay di jëgg Dakar yëpp ñuy wàccee c'est c'est cette zone ma bëggoon ne cette zone euh, man dama fa am ay partenaires yi nga xam ne euh, Montpellier troisième ñu fay def benn économie politique alimentaire territoriale li ñuy def foofu mooy alimenter suñuy cantine euh, scolaire yooyu mais dafa am lu ma fa metti li nga xam ne il faut ma wax ko mhm. parce que dañoo jékki-jékki ñoom it par seen procédure yooyu ngay wax benn nit ñëw dañ ko faa dañ fa jox dañ ko faa jox pour mu def comment dire station rek bu àndaale xam nga boulanger rek Euh, maraîchers yi si boppam nga xam ne généralement il m'appelle parce que man man man andi naa fa projet yi nga xam ne euh, à plus de presque trente millions yi nga xam ne pour machinisation ñu am ay tracteurs projet boobu ñun ñoo ko bind conseil départemental donc ñun ñu ngi fay liggéey ak ñoom. Mhm. ñu ngi leen bëgg a placer dans le marché d'intérêt national de Diamniadio di labelliser le Lendeng loolu ñëw ñuy kaas ñu jàpp ci 17 le propriétaire doole bi mu am 17 naan xam de destruction de biens appartenant fa dara pour la vérité ñu tëj ñu dem procès lañ leen di door a libérer ça veut dire mooy li ñuy wax noonu souvent dañuy ñëw zone agroécologique. Hmm. soo gisee zone bi comment quelqu'un peut venir ne daj si biir tool yi ne donc man loolu moom il faut que man. duñ ci far. Hmm. il faut ñu xam ne ça fait très beaucoup donc mooy ramener la question même zone yi ñu déjee yi zone bi ñu war a béyee soo demee ba prédation euh, prédation foncière bi jël ko ñu toj fépp def ko béton l'équilibre naturel de régions sax mooy. am hmm, problème léegi yow euh, Dakar 6 millions ou combien de millions d'habitants fan la ñuy rabitaayoo en fruits fan la ñuy ravitaillé en légumes fan la ñuy ravitaillé en ceci mais zone naturelle yëpp soo ko dindee da ngay problème mhm. il faut que loolu ñu xoolaat ko su ma ñëwee embrayé ci licence pêche yi foofu moom catastrophe moo fa am il faut avoir l'honnêteté de le dire mhm. ce qui se passe tout le monde le, le sait c'est des chinois c'est des coréens c'est des japonais c'est des russes qui viennent si seen armature ils approchent des sénégalais sénégalais yooyu ñooy dem à leur nom prête mm. nom yooyu noonu ne c'est un navire sénégalais da loolu moo leen di exonéré de lépp lu leen waroon en tant que état Abdou Diop moo ko moom alors que soo demee ba si ginnaaw sa Abdou Diop la voilà il s'appelle un euh, c'est un chinois mm-hmm. wala c'est un coréen léegi moom ñu dispensé ko de tout ce qui est taxe ak et cetera sax dañuy dellu quota bi parce que des dañu naan quota pour les sénégalais c'est tant parce am na ay tonnes ay trucs quota pour les xam dañ koy équilibrer mm-hmm. pour l'essentiel nag derrière quota bi qui devait appartenir à des sénégalais ñu comprendre ne dañ ko war a napp fii andi ko ci biir c'est encore des coréens dana ñooy ay prêtres ñoo nekk derrière ce l'état y perd c'est énorme mmh. en termes de milliards en ouais, termes ouais, etc en même en termes d'équilibre même de l'écosystème mmh. problème dafay am parce que souvent ils ont ils ont des pays filets yi nga xam ne lu ñuy jàpp wala lu ñuy lu ñuy nappee mais non nos pirogues là nous qui venons de la côte ñun foofu dañoo màggee yaroo fa nous avons mm-hmm. compris bu njëkk ba euh, dañ doon suñu suñu gëtijee comme on di dem uti jën nappi yooyu noonu les gens ils mettaient pas beaucoup pour revenir maire yi teral kii mais léegi xoolee bu baax même écosystème socialement ça a changé les choses gis euh, gaal bu jógee fii jënd kii daw ay kilomètres yi kilomètres pour mun a am lu mu jàpp déjà avant de revenir parce que maire yi si la ñuy xaar buntu géej nga ñëw ñu wàcc ñu mën a jaay et cetera moo tax soo xoolee bu baax de plus en plus añ yi da en milieu lébu c'est ay 17 heures la hmm. mais lépp soo amee analyse da ngay xam qu'est-ce qui l'explique c'est ce changement parce que bu njëkk bi fi nga doon daw 2 kilomètres am jën ñibbisi à midi les da ngay daw ba 17 heures wala da ngay daw ba 15 heures plus grave certains dañ daan quitter même les eaux sénégalaises dugg Mauritanie après le problème yi daan daal commencer tellement ils vont loin. parce que ñooñu dañoo préserver quoi que l'on puisse dire les Mauritaniens ont plus de rigueur dans la gestion ba ne ñoom licence yi. Mm. Mauritanie fooy ñu ci. ils octroient pas des licences à n'importe qui foofu Sénégalais sax suñ fa duggee dañuy diirante ak ñoom. Mm-hmm. parce que ñoom du ñu nangu. du ñu nangu ngay piller seen kii quand les Sénégalais vont ba ñu fa jot a am licence sax puis suñu kii il débat dañuy débarquer les produits mhm. dans leur propre quai ñu xool tonnage bi nga am lu ñu ci war a am en terme de kii yeeg yooyu yëpp ñu jaaroon mais fii mais mais fii nous et encore plus ça veut dire nous n'avons jamais mis les assez de moyens pour euh, comment dire protéger nos côtes parce que nag une chose est de déployer des licences une autre chose est de contrôler maintenant. Mm-hmm. parce que nag il faut que nga jox comment dirais-je l'armée la la branche qui s'occupe de de de de de la surveillance des côtes la marine nationale. Mm-hmm. il faut leur donner des moyens modernes. de contrôle des données am na des fois yi nga xam ne sax les navires bi ñu fi jàppoon noonu risque boobu ñu waroon fay combien de milliards lañ ko de savoir que ne mm-hmm. nit ñi Euh, pêché illégalement dans nos côtes ñaata yoon nañu amaale fii ay bateau parce que dañ leen jàpp tey daa pour la plupart c'est l'armée française qui nous aide ñoom ñoo am ay mhm. drone ñooñu doon wax ne finalement am na kuy kii ñu dem donc il faut d'ailleurs non seulement une chose est de revoir les licences sanction yi defi ñu ñu yokk ko mu metti ci Sénégalais yi mm-hmm. parce que le patriotisme ne voudrait pas que véritablement pour un intérêt crypto personnel mm-hmm. ngay adossé naan man maa moom bi man maa moom alors que coréen ko moom nga bàyyi ko mu nappa nappa nappa napp ba doyal et loolu il faut sanctionner du donc la la la dernière chose suñu jógee ci sanction yooyu c'est le fait maintenant de contrôler nos côtes avec plus de rigueur mm-hmm. lu nit napp sax mën nañu Euh, dans cette réforme ngay def comme Mauritanie tu vas débarquer ñu ñëw xool ndax jën yu ndaw nga jàpp dem contrôler le tout cela parce que des nga napp loo war te napp wala nga napp au delà tonnage sax bi ñu la mmh, permettre mmh, mmh. donc si tu débarques pas sur nos côtes on napp rek pare rek dem sa yoon donc euh, voilà Babacar à l'école primaire on nous apprenait que les côtes sénégalaises sont poissonneuses mais avec le temps comme ni ko Babacar ni ko kii waxee Pape Mamadou Fam on a vu que c'est un problème maintenant pour le Sénégal ça <laughs> gis nga régime yi nga xamante ne dañ fi succédé gars yi dañu am problème mu priorité en réalité gis nga li ñu def si tali yeeg béton yeeg. Mm. et cetera un vingtième bi un cinquantième bi bu ko defoon ci géej gi dañ protège suñu côté léegi président wax na ko. il a absolument raison. gis nga bateau yi ni nga xamante ne moom la ñuy defee prête-nom pour mu permettre leen ñu dindi yenn taxes seen kaw. foofu aussi il y a un réel problème de patriotisme mm-hmm. parce que des intérêts crypto-personnels ouais. au détriment de l'intérêt de ce peuple mm mais li nga xam ne moo amat solo gis nga bato yi ni ñu ko doon utiliser dans les années soixante gis nga changement climatique bi am dafa wàññi suñuy ressources halieutiques yu bare bare bare bare askan bare jii gaal yi nga doon am ñu naan la ay cinquante gaal ñoo fi nekkoon soixante gaal dans les années soixante soixante dix et cetera léegi tu as des milliers di milliers de pirogues yoo xam dañuy géej wax na ko léegi président man Tëngéej rek laa xam boo demoon tey ji côté Thiawlène yi nga xam fa la gaal yi daan téere ñu ci bëri ak changement climatique bi géej gi mu ngi lekk mu ngi lekk dëkkuwaay yi nit ñi di nekk di dund ay situation yu compliqué et loolu li ko waral mooy benn manque de sérieux ak suñu code yi nga xamante ne dañ si waroon investir pour sauvegarder ko sauvegarder wuñu ko dañ ko bàyyi vraiment bateau yi di di di di di napp napp yoo dañuy napp ba napp ay yóos yoo xamante ne jën yi dañoo war a màgg ñu jëlaale lépp bu ñu paree tànn si li leen neex li si des ñu sànniwaat ko ci mm. géej gi donc loolu yëpp mu nekk loo xamante ne dafay gën a yokk mais difficulté si suñu géej gi et loolu yëpp c'est dû à un problème de rigueur mm-hmm. ci ñi nga xamante ne moom moo yore suñu pêche yi mais loolu aussi dañ ciy yokkaat ci nga xamante ne mooy suñu suñu pêcheurs yi mooy les pêcheurs yi nga xam ñoo fi nekk mooy suñu mool yi ñoom mm-hmm. tamit dafa am beneen façon euh, benn voilà beneen façon mbaal bu ñu yore mbaal boobu aussi tamit boobu baaxul aussi monofilament mm-hmm. et loolu li koy andi mooy da ngay dem ba nga xamante ne li batu yi di yóbbu mu lay yóbbu yow boo uti jiwul boobu boo moytul doo am dara. Mhm. léegi boo jëlee ñële di indi ay désagrément yow ngay andi ay mbaal boo xam dafay yokk désagrément mooy indi tey ji problème bi nga xamante ne moo am si géej gi muy sàmbaraa bi mhm. wax na ko léegi da ngay obligé di daw des centaines et des centaines de kilomètres en profondeur pour mën a am jën yow mën a andi mhm. li ñu indi mooy la rareté des poissons mooy andi la cherté mais et cetera et cetera tey jii nii Sénégal yëpp ay poissons congelés lañuy lañuy la ñuy mm-hmm. lekk mooy yi xam dañ koy jàppee si bateau yi mu nekk ci conteneur frigorifique yi ay ay un an camion marocain chaque jour ñu ngi ñëw fi ñu indil leen suñu koy def mm-hmm. suñu port bi ñu dem jënd mooy indi yenn yenn filiale japonais yi chinois yi ñooy jaay maintenant les poissons congelés moom la suñu commerçant yi ak di dem jënd ji foofu port mhm. yóbbu ko marché poisson Pikine moom la ñuy jaayee ñun mais je pense que loolu nag li koy résumé waat mooy problème mu séeréer bi ñu doon wax rek gis nga le mal est très profond tey ji foo laal xam nga yaa ngi commencé waat di wax waxu catastrophique gis nga foo laal muy foncier muy pêche bi boo duggoon transport c'est-à-dire que Sénégal li koy defaraat du caaxaan. moo tax il faut décréter zéro compromission. zéro tolérance gis nga ñi war a tëdd nañu tëdd ñi war a taxaw taxaw ñu war a toog toog et je pense que suñu jëlee procédure boobu jàpp naa ne balaa ñuy jeexal mandat bi waxuma ne dinañ régler problème bi. Mhm. mais dinañ nekk ci benn pente boo xamante ne dinañ xamante ne fi ñu jëm. Mhm. parce que en réalité rupture bi ñu di oote du pour ñun ñii. xëy pour la génération future mhm. parce que le mal est très profond dans ce pays Roger le mal est très profond la pêche conséquences yi rareté poisson indi na lu bëree bëri migration irrégulière bokk na ci sunu nappkat yi di jàll ba Mauritanie ñu leen fay door ay fetal loolu yëpp ay mbir la yoo xam ne avec ce régime il semble prendre euh, le problème à bras le corps gis nañu euh, correctif yi nga xam ne bëgg nañu ko apporter ci géej gi dernièrement sax ñu ngi gis sénégalais ñenn ñu tooñ naan jëni commencé nañoo ñëwaat xam naa ne euh, c'est juste pour rire mais juste pour dire que ne kontaan nañ ci décision yi nga xam ne le président Diomaye jël na ko waaw xam nga déjà loolu dama jàpp ni c'est une bénédiction pour le Sénégal parce que on parle de 700 kilomètres de côte donc tey dañu ne yenn adage wolof ki di ñu mën a côté amuñu mbaam parce que tey Sénégal lu ma am. Mhm. y' a beaucoup de pays d' Afrique qui ne l'ont pas. qui sont enclavés yi nga xam te tey ñaanoon nañu yàlla am lu ñu am ñun si côte. ça mais comment se fait que ñun ñu am autant de kilomètres ci côte bi par am ces problèmes mel nii on parle d'un secteur qui emploie plus de 600 000 Sénégalais. Mhm. c' très important donc veut dire que secteur là boo amee problème beaucoup de Sénégalais l'une des, des raisons c'est le problème dans le secteur de la mmh, pêche mmh, mmh. parce que tey man je connais par exemple à Ziguinchor beaucoup de pêcheurs yi nga boo demee tey tu demandes kenn nekkatu fa tout le monde est parti en Espagne et daf leen leer ne ils sont passés par ces voies irrégulières donc pour te dire que c'est un problème. et découvert en allant de plus en plus loin. ci la ñu xam <laughs> exactement parce que comme il a dit tantôt. te dee na daanaka parce que amatuñu sax du poisson à transformer donc moo tax dañuy saluer vraiment euh, cette posture bi nga xam te ne état bi jël na ko parce que c'est une urgence mm-hmm. te mënuñu yor autant de codes comme je le dis encore une fois plus autant de population qui s'active dans ce milieu de de la population active et qu'on néglige ce secteur là pour man dafa am na tuuti laxisme ak négligence si mm-hmm. gestion bi donc quand on voit aujourd'hui des mesures fortes qui sont que l'une des des bi nga xamante ne mooy mooy euh, moom la gouvernement bi am moo dañu ñëw pour rupture mhm. dañu ñëw pour une économie endogène dañu ñëw pour la consommation locale aujourd'hui cela ne veut pas dire que nous vivre en autarcie des autres pays ou bien de mais il va falloir que aussi ñu jëm a xool nu ñu moomee suñu bopp mhm. nu ñu contrôler suñu économie gagnant gagnant pour moi c'est très important donc des décisions fortes tel que le retrait de plus de cent cent euh, cent cent chinois. Mhm. pour man loolu c' est une décision qui a à saluer. donc war nañu continuer il y a pas mal de de solutions nga xam te ne war nañu ko dama jàpp ne état aussi dañu war a gën a déglu pour trouver des solutions ñu déglu les populations yi nga xam te ne ñoo nekk ci secteur bi par exemple boo jëlee les populations lébu. ou bien euh, nga dem côté Joal il y a beaucoup de propriétaires depuis seen temps maam loolu la xam. loolu la xam donc qui connaît mieux que ces gens là les problèmes. qui connaît les les les les solutions plus mm-hmm. donc les impliquer leen en fait effectivement parce que Sénégal souvent euh, voilà tout le monde se prend pour un expert da dem Google jël quelques informations tu viens tu te tapes tu dis que yow tu un expert. <laughs> consultant international exactement pour <laughs> de de premier plan. Merci. ñu demander leen seen avis wax ñu ñoom nan la ñuy xalaatee. nii loolu la ñu mën a apporter pour pour pour pour vraiment améliorer ce secteur là bu ko defee des experts yi nga xamante ne tam jàng nañu domaine bi. Mm-hmm. ñu jël ñoom seen aptitude en problème solving ñu indi des solutions qui vont vraiment pallier. à Merci. à cette euh, situation quoi. le euh, le le Sénégal les pêcheurs sénégalais la pratique ni ñuy ni ñuy nappee aussi est-ce que ñoom it euh, à force de demander ñu privilégier leen. mais est-ce qu'en retour ils ont la formation nécessaire est-ce qu'ils ont les moyens pour que mën a occuper li nga xam ne moom la étranger di occuper loolu aussi est-ce que ñoom jaaduwul ñu gën a regrouper wu gën a dooleel seen bopp pour <coughs> occuper justement li nga xam ne moom la navire étranger yi di di jël mais c'est ça le c'est ça le grand problème c'est comme le pétrole mm-hmm. aujourd'hui y a aucun Sénégalais pour ne pas dire africain qui a les compétences les capacités financières et techniques à exploiter ouais. le pétrole mm la pêche également a les navires qu'il faut mmh. pour pêcher dans nos eaux je pense c'est ça la grande question et euh, euh mon avis hein, il faut pas aussi qu'on s'arrête sur les, euh, les effets d'annonce parce que moi j'ai l'impression qu'on n'est pas au même niveau d'information mhm. <laughs> j'ai pas vu de retrait de licence il n'y a pas de retrait de licence ce qu'il y a c'est publication des navires autorisés à pêcher oui ku ci gisul sa bopp tu es retiré pardon ku ci gisul sa Abdou Kane bokkoo ci. non non non toutes les navires autorisés. Mhm. liste boobu lañ publier. oui. en phase pardon. on a on n'a pas dit on a dit on publie la liste de toutes les navires autorisés à pêcher et cette liste la elle ne prend pas en compte les les les les licences en cours de renouvellement. maanaam exemple bu banal. examen bu ñu ko defee. bu ñu joxe résultat yi ñu admis la ñu joxe. ku déggul sa tur mooy bokkoo. c'est pas ça c'est pas non non non ce qu'on a fait c'est que quand il y a une classe il y a vingt élèves. Mhm. c'est la liste des vingt élèves qui a été publiée. ce sont les navires qui ont une autorisation de pêcher moom lañ publier pour des raisons de transparence quel est l'objectif je ne sais pas mais pour l'instant il y a aucun retrait de licence il y a il sur la liste des navires qui sont autorisés à, à, qui si maanaam ceux qui opèrent clandestinement ils doivent savoir maintenant que bokkatuñu. mais c'est ça que ça signifie ñooñu c'est c'est c'est eux qui causent le mal. non ñooñu ils sont pas autorisés. moi <laughs> c'est un début de règlement en fait pour wane que ne. voilà ah, loolu loolu exactement moi, moi, je sais pas où pour ñu xam ne. on les a à l'œil. oui mais ça on a même pas besoin du si c'est ça on a pas besoin. ñooñu ñoo ñoo doon def le mal ah. ils ont causé beaucoup de mal. exactement ils ont causé beaucoup de mal. oui c'est ça je dis je salue ça. je suis d'accord voilà bien sûr. Mhm. non je salue la publication de cette liste là. oui mais j'ai entendu des gens dire qu'on a qu'on a suspendu qu'on a arrêté qu'on a retiré des licences ça c'est faux. même ñi doon wax ne koy euh, euh, jën jën yi ñëwaat nañ. c'est pas <laughs> pour ñoom. xam naa dañuy tooñ pour les l'instant on est au mhm. de la publication des des des des des navires qui sont autorisés. Mhm. il a une autre étape une étape la seconde étape d'abord pour moi il les accords de pêche avec l'Union européenne qui viennent à terme je pense c'est au mois de novembre bu en tout cas bientôt. voilà j'ai écouté Charles Michel Keroog. Mhm. Euh, voilà. je pense que euh, ce que moi j'attends de ce gouvernement-là c'est que honnêtement par rapport à à, à ces accords-là qui qui préserve les intérêts des Sénégalais. Mhm. il faut pas qu'on subisse des pressions wala quelque chose comme vraiment que les intérêts des Sénégalais soient préservés dans le mhm. cadre de ces accords il faut des gens qui connaissent la pêche mhm. qui connaissent des juristes qui peuvent déceler les pièges dans les accords parce que aussi euh, de l'autre côté c'est des gens aussi qui sont outillés c'est des accords quand tu signes tu viens pas signer aujourd'hui pour dire demain tu tu tu tu annules c'est pas comme ça ça la responsabilité de l'État et ça engage beaucoup de moyens donc d'abord ça et je pense que ñooñu li ñuy pêché dafa bari. waaw d'accord avec l'Union européenne parce que c'est toute l'Union quand tu signes avec l'Union européenne. comme l'a dit Fam amuñu benn moyen de contrôle. bàyyi ko tuuti ma renouvelé wu. ay même le contrat exploitation bi dafa métti. il faut que ça exactement. Ah, donc donc donc il disait. Maman hmm? Sacha de une minute. si hmm. trente secondes si kii am. aussi on a autant d'épaves à Dakar yu jëriñul dara ñu nekk ci kii bi. les professionnels disent que ces épaves-là suñ ko jëloon ñu yóbbu poissons de se reposer. ñoo soxla yooyu noonu ay épaves. Mm, et c'est sans doute bien il y a combien d'épaves à Dakar amuñu déchetterie comme en Europe où on les quelque part mais prenons ça et mettons ça. dans c'est ça donc ah, ah. donc donc je disais que par rapport aux accords de l'Union européenne puisque euh, ça arrive à à expiration au mm-hmm. mois de novembre. c'est le moment qu'on préserve les intérêts des Sénégalais en associant les spécialistes aux navires qui sont autorisés également je pense que il faut euh, prendre à bras euh, l'affaire à bras le mm-hmm. corps c'est-à-dire que euh, je ne sais pas c'est la périodicité périodicité de ces ces ces licences là donc il faut que ñu càmbar ko licence par licence est-ce que vraiment on a notre intérêt là-bas si c'est pas le cas euh, s'il est possible de résilier avec des dommages et intérêts je ne sais pas le faire et rationaliser et pourquoi pas peut-être. Ah. opérer un repos biologique. jox la mais daam loo ci bëgg a dolli Roger rapidement. c'est mm-hmm. important que ñu impliquer ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur bi. parce que man j'ai suivi l'année passée benn documentaire qui a été tourné euh, vers Joal des yi nga xam ne ñoom ils expliquaient que am na benn moment bi nga xam te ne euh, la réification gis commencé gisatuñu en fait jëne ñu décidé toog ensemble trouver des solutions si lañ créé des aires maritimes protégées. mais quand ils l'ont fait ça a porté résultats. Mm. parce que am ne ba disparaître. Mm. commencé nañ ko après gisaat ñoom ci seen pêche donc loolu je pense que c' est très important. Ah ah. am na toujours des moyens et des techniques de régénérer encore sunu le secteur de la pêche les difficultés causes conséquences. non cest à non non il est exempt non suivi un peu son son parcours. parce que maître xam naa je l'ai suivi un peu xam naa parce que. mais les depuis le non non non fa la que. même ah, se souvient exactement <laughs> yow yoo a voulu attraire euh, feu Ousmane Tanor Dieng par rapport à licence de presse on se souvient. mais après bu jul dem fenn yàlla na ko yàlla yërëm ko. amiin amiin c'est pour femme vous avez vous avez da ngeen historique boo xam ne parce que li ngeen war réparer moo garaaw gis nga même la publication de la liste li tax mu am solo première étape li tax mu am solo d' musul am les Sénégalais sauront maintenant officiellement liste ñii ñoo am autorité mhm. droit napp tout ce qui le faisait clandestinement clandestinement l' leur a envoyé un message mhm. toog leen est-ce que nous nous avons la possibilité vraiment de contrôler. loolu tam beneen problème la mooy li mu wax en fait c'est vrai on n'a pas les moyens en fait. voilà donc fa la fa la ñu beneen étape la. seen patrouilleurs yi est-ce que doy na. donc c'est-à-dire première étape bi à au moins ils ont publié maintenant bu ñu yem foofu nañu wax sénégalais yi déjà beneen étape dañu wax sénégalais yi ñii ñoo ñii ñoo doon napp ci géej bi pendant les dix les douze les vingt ans voilà ce que le Sénégal a gagné voilà ce que ñoom li ñu yóbbu. il est bon qu'on nous dise. combien de milliards les Sénégalais ont gagné par rapport à ces accords là mm c'est important ci dynamique de transparence bi dafa am solo mais gis nga les li li Roger doon gis nga les ministères là y a des gens y a des y a des gens assermentés qui qui s'y connaissent mm -hmm. mais pour la plupart gars yi su ñu ñëwee les politiques su ñu ñëwee ministère xam ni Roger connaît le domaine dañ koy jël yóbbu ko frigo duñ ko sax déglu ça coûte yaa combien combien de gens sont là am seen xam-xam am seen expertise malheureusement ñu def leen frigo ñu ignorer leen dans les ministères ignorer leen dans les directions lu ñu mujj def dañuy dem feneen. ça c'est la fuite des capitaux ñu dem seen yoon. Mm-hmm. parce que gars yi duñ leen déglu. Mm-hmm. les politiques qui signent ces choses là duñ leen sax déglu parce que ñoom li leen intéresse c'est pas le le patriotisme économique. c'est pas mm-hmm. l'intérêt que kii li fi am parce que Charles Michel lu Mm-hmm. il n'est pas venu venu dire Diomaye je te dis bonjour. il n'a pas un agenda caché. non non non wax na ko léegi les accords de pêche mu ngi jeex novembre il faut anticiper donc déjà ñii bi ñëwee chance la. Mm-hmm. chance la bi ñëwee fekk muy expiré. Mm-hmm. fii ak novembre neex na neex na xaar. maintenant suñu demee ba yegg comme on a dit on n'empêche à personne de venir pêcher mais que soit gagnant gagnant voilà la la ñu teg carte sur table. su ñu tegee carte sur table voilà lii la ñu autorisé lii la ñu autorisé mm-hmm. maintenant au même moment par rapport aux moyens yi ñu wax par rapport à l' ñu jël gars yi yóbbu leen ñu créer nos propres moyens am suñu moyens parce que patriotisme économique soo bëggee am aussi il faut nga am les moyens de pouvoir euh, mener tes mm-hmm. ambitions ça mën nga am ambition mais ambition yi aussi il faut nga am les moyens de pouvoir porter ça beneen affaire bi euh, dafa la pêche artisanale nañ ko redynamiser développer ko. Mm-hmm. mais dafa am solo damay jël l' par exemple de la vallée jëlal de Bakel jusqu'à de de Saint-Louis jusqu'à Bakel mais le fleuve nos parents dañ doon napp. c'est une pêche artisanale au-delà de de la pêche au niveau maritime mais le fleuve. dañ ko war a jël valoriser ko moderniser ko. y une cause boo xam ne j'ai discuté avec un technicien mu ni ma. soo gisee sax par exemple côté bi mënutul am jët jëlal l'histoire des barrages de Diama que tous les poissons maintenant sont stockés au Mali à cause de ces barrages là. Hmm. parce que bi ñu koy def ils n'avaient pas pris en compte cette donnée là ils avaient juste pris la la donne de l'irrigation des eaux salées et tout ça mais jëluñu woon en compte ça maintenant barrage bi su ñëwee rek jën yëpp fa lañ des. Hmm. maintenant dans cet aspect là dafa am solo ñu équiper les les artisanaux jox leen des pirogues motorisées. comme ñu nekk Joal ñu nekk Casamance ñu nekk dans terminer soo demee dans demal dans le Fouta ah, nga dem dans les postes de Saldé et de euh, de de Ouassetaki moi j'ai eu euh, Aw. xam nga la mhm. leen Mauritanie yi ñooy indi jën. Mhm. dédouané dédouané ko ba pare di ñu ko jaay. même les Marocains seen i camions dañuy ñëw camions frigorifiques yi. femme de ñoom ñooy et pourtant on a 700 kilomètres de côte on a toute cette cette mhm. tout ce fleuve là boo xam ne mais Casamance Joal partout c'est dama on peut fi mu lay wax c'est ñoom ñooy def la pisciculture foofu. Ah. di jàpp jën yi. di ko defar di ko jaayaat ñuy jël. ça doit dire que dañu may fay ay licence de pêche yu may octroyé c'est une manne financière. Mm-hmm. tout qui touche aux produits halieutiques am na manne bi nga xam ne ça va directement dans les caisses de l'État État dafa war a mën a xam ne par rapport à tel domaine li ma ciy génnee am na lu may lu may defee samay politique publique mais sans nul doute mais am na li nga xam ne a on va permettre à des sénégalais nu mu yónnee ñu leen di investir ci ñoom pour ñu am armature boobu noonu maanaam am ay bateaux ay hmm, tonniers et cetera c'est permettre à ces sénégalais là de am industrie il faut revenir aussi industrie bi ngay nappee fii transformer fii mën a sax di exporter quand on va pas dans ce sens là tamit mënuñu di joxe ay licence de pêche am ay côte ñeen ñëw di di di di napp fii di ko sax bu ko sax jaayaat bi ils vont transformer ça en produit fini. oui surplace ay produits une fois ñu mu doon produit la ko dugalaatee fii mais ça veut dire il faut gagner trois fois ou quatre fois. ñoom sax liñ ci liñ ci defoon merci beaucoup point bi je commence par maître euh, on a assez parlé de des rapports et autres dama bëggoon ñëw ci la diplomatie sénégalaise sous Sonko et Diomaye ak dernièrement Ousmane Diomaye président Euh, bi mu jàkkaarloog euh, son homologue mu ngi saluer leadership am alors que dans l'opposition on le traitait de <laughs> de de marionnette bu nekk sol de France. c'est euh, bon mais Diomaye on on sent nettement que mi ngi ci préservation république ak yu mu àndal. par contre son premier ministre Ousmane Sonko il a choisi d'aller voir les pays yi nga xam ne régime militaire ñoo ñoo fa nekk ban ban ban jàngat nga ci am. bon moi très honnêtement ça me pose problème vous savez la diplomatie c'est comme au président de la République mais la particularité aujourd'hui au Sénégal c'est qu'on a un duo <laughs> on a un duo gis nga démb j'écoutais Maimouna Ndour Faye elle a parfaitement raison on a un duo au sommet de l'État euh, c'est vrai que c'est Bassirou Diomaye Faye qui est président de la République oui c'est vrai que c'est c'est Bassirou Diomaye Faye qui est président de la République mais Ousmane Sonko a plus de légitimité c'est ça la vérité politique des faits xam nit aussi il faut pas qu'on se la face ceux qui sont allés voter un peu comme non gars Poutine, sont c'est ça la vérité non c'est ça la vérité je pense Bassirou Diomaye Faye lui-même il sait c'est vrai que juridiquement et tout ça il est président de la République mais Ousmane Sonko quand même c'est lui qui a incarné la légitimité sauf que on est dans un état mhm. il aura beau avoir cette légitimité il aura beau avoir cette ascendance sur Sonko et tout ça mais le président de la République c'est Bassirou qui qui qui incarne la, diplomatie vraiment c'est un domaine réservé c'est un domaine de souveraineté. Mhm. et il faut qu'on fasse attention les États n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts ils n'ont que des qu'on le connaît il va en Guinée je sais pas il y va en tant que président de PASTEF. mais c'est oui. plus profond que ça en oui, fait. oui il va là-bas en, tant que président de PASTEF quel est le discours qu'il va tenir là-bas. il est le premier du en même donc lool lay wax ji en fait. c'est pourquoi je dis c'est pourquoi je dis s'il tient un discours là-bas forcément on verra le Sénégal. Mhm. forcément c'est vrai. forcément je sais qu'est-ce qu'il va dire. donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention par rapport à la diplomatie et puis moi je pense que c'est la première fois euh, ministre qui lui aussi a son agenda mm -hmm. diplomatique j'ai jamais vu ça il faut qu'on fasse attention je pense que c'est vrai que c'est le contexte euh, la manière avec laquelle ils ont été élus tout ça mais je pense quand même que euh, l'international, on doit laisser ça au président de la République. Et puis Sonko, il gère le... Il gère, il gère, il gère et, et Diomaye, comment est-ce qu'il se débrouille par rapport aux pays visités Non, non, Bon, pour l'instant, c'est des, des visites de courtoisie. Euh, voilà auprès des voisins à part la Côte d'Ivoire comme vous l'avez dit hein. Mm -hmm. euh, celui dont on, dont <laughs> euh, attention il est, incapable d'empoisonner voilà on, mhm. va le chercher c'est comme ça <laughs> l'opposition et le pas la même nous ce qui nous intéresse vraiment ce sont que les intérêts du Sénégal soient présents moi c'est ça qui m'intéresse Euh, oui Mamadou Awa am na solo on est on est on se déploie mais euh, je vois pas aussi par rapport à ce qu'il dit il y a pas de, de dichotomie un, un point de démarquage entre ce que fait le président non je pense que nous avons un projet à dérouler donc euh, xam nga les éléments de langage. président Diomaye li muy de langage non non amul problème il faut pas qu'on que c'est Ousmane Sonko il fait son agenda à part alors que lu muy def président Diomaye sax non non. nous nous avons un projet. Mmh. et dans ce projet-là vous avez bien un Sénégal euh, souverain juste prospère dans une Afrique en progrès Afrique en progrès boobu sa veut dire on peut pas vivre aussi en autarcie on peut pas vivre dans un protectionnisme maintenant ils y mettent la forme comme ils le disent. le, président de la République. non. Euh, il y a deux. <laughs> loolu non il y a ce qu'on appelle la légalité et ce qu'on appelle la légitimité c'est deux choses qui sont donc en de diplomatie ce qu'ils ont fait c'est pas mal en soi si mhm. on a les clés pour comprendre le président Diomaye va dans ceux qui sont dans des postures de légalité mhm. oui mais non je dis pas le contraire ça peut froisser ces ces, ces états-là mhm. imaginez si c'est dans cet esprit-là que le président République du Sénégal euh, en Guinée au Mali au Burkina c'est des putschistes c'est pas des démocrates je vais pas aller non, voir alors euh, a quand des relations avec ces gens là c'est ça qui non non non non c'est pas le voir non non c'est pas pour les états aussi il a les états non pas d'amis les états n'ont que des intérêts mais tamit derrière toute chose il faut l'image qui si mhm. c'est-à-dire aussi on ne peut pas encourager comme ça euh, c'est ce genre de comportement parce que ça s'est jamais passé au Sénégal démené mhm. par stratégie j'ai dit il y a la légalité il y a la légitimité mm -hmm. les présidents ils se sont dit lui il commence par la légalité c'est qu'ils sont élus démocratiquement etc maintenant l'éclaireur c'est donc dans ce sens des putschistes xam nga ñoom dañoo retiré wu dañoo dafa am li nga xam ne Si. Ah pourquoi Non, mais oui. Des gens qui, sont, qui ont accédé au pouvoir par les armes. Ouais. Sont, mais ah, si, à tous les morts dans le pays. Mais mais il y a des gens qui ont arrivé qui sont arrivés au pouvoir en violant la Constitution. Oui oui mais là ñu ma bëggoon a wax li ma bëggoon a wax man pour man ñu ngi ci a ah, ñoom ñaar ñu ngi waxtaan te li ñuy waxtaan moo nekk ci suñu projet. Ça veut dire ñun ce qu'on a cru ce qu'incarnent ces jeunes là même s'ils sont putschistes posture yi ñu am c'est ces postures là qu'on attendait véritablement de ce qui devait incarner la légalité. mais ñoom mais ñoom ce qu'ils ont fait. pour beaucoup et pour beaucoup. oui mais dans le pouvoir était mais dans l'absolu comment on voudrait voir aimer qu'on voit des des comment euh, des coups d'État l'ère des coups d'État Afrique rek am te dafa war a mais il y a aussi problème bu nekk derrière et il faut l'accepter. c'est en fait on a dit que la chirurgie comment dirais-je euh, comment dirais-je il y a quelqu'un qui ironisait à le dire ne l'opération la plus difficile en Afrique c'est de séparer les les les tenants du pouvoir de leur siège. <laughs> généralement généralement 40 ans ils sont là ils veulent pas partir et mm. généralement ces processus là ñan la ñu dindi pour la plupart c'est des gens qui sont qui ont été là au Burkina pendant pendant vingt ans trente ans mhm. quarante ans sooy waxee tout le monde ils ils disent que sont dans la légalité ils cosmétisent les choses alors que dans la au les partis politiques femme c'est grave. Euh, on a suspendu. Euh, euh, Tam on est entré on n'est pas mooy li nga wax noonu on est entré pas on n'est pas entré ne veut pas dire. mais ne comprennent pas en fait c'est que les autres présidents n'ont pas réussi. mooy il a récupéré le territoire malien dans son intégralité. c'est-à-dire ce que je veux ma xam nga wax ci biir wax c'est je de dire. nous nous avons un de leadership. nous nous en l'Afrique cette Afrique là en progrès bu ñuy wax mënoo doon Afrique ñoom dañoo génn mais je sais que comme il a dit le président Ousmane Sonko incarnant notre projet malgré tout aussi am na aux yeux de ces jeunes là qui sont des jeunes présidents am na lu muy tekk si ñoom il les a montré que la voie on peut être démocratiquement prendre maintenant que les gens là viennent mais agenda bi mu fa demee est-ce que il vous dit que il va comme agenda il va pour les encourager est-ce que va il va li nga xam ne muy wuti mais il va peut-être pour les sensibiliser mais une fois que vous avez pris mettez-y def leen li ngeen war def pour une transition démocratique pour Afrique bi ma bëgg ñun ñu tegu ko ensemble ñu dans la sous-région ñu commencé ko parce que dina leen ne dinañ am on va vers notre monnaie cette monnaie nous devons l'avoir parce que ces jeunes présidents quoi que l'on puisse dire d'eux ils tiennent un bon discours le discours qu'il faut ils sont patriotiques mhm. regardez ces jeunes là bañ tase ak Macky mais ce qu'ils disaient on a bu les rebrouiller vous êtes jeunes vous ne comprenez pas c'est pas vrai ce qu'ils disent ils sont courageux ils sont en train de prendre leur destin en main parce que nag quelque part si Sonko va les voir c'est pas pour les faire des yeux doux c'est pour leur dire quelque part vous la bonne voie vous avez de Euh, sur pied vos pays mais quelque part aussi il faudra toujours qu'on se dise que la forme la plus normale d'un pays c'est que des citoyens euh, lambda mm-hmm. à la tête portée à la tête des instances et non pas des putschistes ou bien des militaires loolu c'est des régimes d'exception mais il faut dépasser ces régimes d'exception là euh, vers des régimes démocratiques normales mais loolu nag euh, foog laa daan leen Mamadou Awa mënoo ñëw nga ne da nga bëgg ñun suñu suñu slogan bi suñu projet bi su ma bi ñu wax ci Afrique nga ñëw toog Sénégal je me je me soucie de ce qui me concerne non ce leadership là bi ñu war a dox ba dëkk yooyu dem xaaruñ ko ci tubaab yi xaaruñu ko ci keneen il peut aller dem waxtaan ak ñoom pour ne leen de la soit redevenez des civils ngeen dem conclure au pouvoir su nekkee am ngeen yéene. Mhm. wala assurer ngeen transition yi ngeen joxe ko mais on peut pas dire au au Sénégal venez n'allez pas les voir ne discutez pas mais c'est quoi notre ce historique par rapport à cette Afrique ou que nous devons construire aussi gis-gis bi nga ci am li mu wax nii c'est c'est logique aussi. yanu na maanaam. man damay def am lu ma partagé ak moom. Mhm. am loo xamante ne partagé c'est évident. Mhm. moi je pense que sànq wax nañ ko quand on parle de légitimité. Ousmane Sonko la mais la légalité c'est Ousmane c'est c'est Bassirou Diomaye et moi je pense que je vois en Bassirou un jeune qui apprend vite mm-hmm. te man personnellement am naa ci moom yaakaar wax fa dëgg yàlla mm-hmm. ndax euh, ñëpp gis nañu pendant la période électorale ak instant yi fi ñu toll ni da ngay xamante ne mu ngi poser ay jalons discours bi ñuy di wax Abidjan et cetera c'est c'est c'est normal dafa am fu mu nekkoon ak fu mu nekk tey bokkul bu ko nit ñi bëgg a juger démb si tey si waxu tayam non dañuy def fausse route du benn. Mhm. maintenant pour les déplacements de Ousmane Sonko je pense que président wax na ko léegi. Mhm. lire la signification de Pastef rek moo lay yóbbu si démarche Ousmane Sonko ay eh, panafricanisme lañu dañuy dem seet ji waxtaan xam nga yow yaa ngi dem. mais kenn mënu la wax avec précision lan la fay defi et moi je me pose même la question à savoir est-ce que c'est des visites officielles parce que lui. il en tant que chef de parti. justement moo tax ma ne la donc du benn. Mhm. parce que demee fa en tant que PM. Mhm. dafay dem en tant que président de parti. oui donc foofu man. la àndee maintenant bon les populations leurs amis sur place. non xam nga <laughs> xam nga mën na mën na nekk un chef de parti. buy dem rencontre yi maintenant un chef d'État. mais est-ce que mën nañu mais bu fekkee ne tey si si attends si si. chef de parti ak premier ministre. absolument absolument tey dafa am parti Pastef am le gouvernement du Sénégal aujourd'hui moom il ne se déplace pas en tant que PM il se déplace en tant que président du parti Pastef. maintenant su fa demee avec ñoom esprit bi nga xam moom lañ yor mooy Afrique bi nga xamante ne mooy booloo nekk benn. def benn say pour atteindre seen objectif. mais moi je pense que bu dee état d'esprit boobu la fa amee effectivement mën na bokk si une sensibilisation bu leen di permettre ñu jóge ci état si si si si ci posture en tout cas postiste maintenant à une démocratie. légal ce que la CEDEAO n'a pu faire ce que le peuple n'a pu faire moom mu def ko. yaakaar nga ko mais mais mais mais mais mais mais mais kii nu mu tëddee euh, am kii. Mamadou Mamadou mais CEDEAO bi wax fa dëgg yàlla tur rek moo fa nekk c'est une coquille vide tey ñu ngi wax ne effectivement dafa am ay coup d'état par les armes mais il y a des coups d'état constitutionnels boo xam te dañ koy dund. jëlal tey jii nii coup d'état yi am ci pays africain yëpp. nan lay demee en général c'est des présidents qui s'entêtent. vraiment avec, ne euh, pas organiser